الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم علي يذكر في أسقي حامل لواء في طريقة تجانيتي اه بعد <laughs> في دار السنغالية مولانا الحاج مالك بن عثمان اسكي اسكي جامبار جا كي فخي خم يالا ki fexe nit ñi bëgg yàlla ki fexe nit ñi xam yonent bi ki fexe nit ñi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa du papa sëriñ Babacar Si waxoon moom la uh-huh. jamono tabe nga de uh-huh. tabe nag di tabe ku ne indi ko uh-huh. nga demee ba indi alaaji Malik yeex ma ma daru jaa su mel ni sëñ bi malikil wa kamaliki للمالكي للمالكي من دمي مالكي وكمالكي كالدهر مار وكمالكي Ah, tey nag Sëriñ Babacar Si nee na. Mm-hmm. ku bëgg yonent bi jamono doo fi tabewaat indi ko yeneen ko mel ni Seydil Hadji Malick. Mm-hmm. rakkam ak Hadji Mouhamadul Mansour bàyyi Sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour borom ñaari kaale. Mm. wallaay ne Imam Malick ron woon ron xabru rasulullah sallallahu alayhi ci dëdd fii ne daan jàngale mboolem branche xam-xam ya hmm. alxaaji Mansour nee na imam Malik moomu la ñu weccee alaaji Malik mu la Malik wa buddi la min malikin malikun bi jamail fununi lati xat dëgg la maa ngi lay wax ni hmm. turub bi ismulaay al hmm. maa ngi lay wax ni moom Seex Seydi Alxaaji Malik radiallahu liggéeyal day dëgg mooy tax nga xam maa ngi lay wax ni ku yàlla bëggul baaxee. Mm-hmm. doo xam ku yàlla aji maa maa ngi lay xamal ni boo ko bëggul boo ko bëggul boo ko bëggul mu boo bëggul topp ko. bul ko vérifier. dëgg la maa ngi lay wax ni boo bëggul jeex tàkk ci moom bul toppatoo Alaaji Malick nekkal ci leneen. dëgg la waaye bi bis boo ko vérifié ba mos ko. ba mu seex Seydil Hadji Malick di hmm. nga xam ne alaaji Malick a dàq lem moo doo dàq suukal di nga yëg yokkuteg yàlla ci yow yëg yokkuteg Seydina Muhammad ci yow gis yokkuteg mbaax ci yow di nga yëg ni doomu aadama dootula naxati di ko vérifier Seydil Hadji Malick dëgg la dëgg la dëgg la Malikia TV nag xam nga boobu tur loolu ilham la la ilaha illallah alxaaji ngañ yàlla nga gudd fan. amiin alaaji Pape. alaaji Pape Malick Mbaye yàlla nga gudd fan. amiin yaa rabbal alamin Pape. président Makhtar Ndiaye yàlla nga gudd fan. ak yaa rabbal alamin ngañ. mais alaaji Pape xam nga lu ma bëgg. Uh-huh. dan la koy ñaan ci barke maam Cheikh Seydi Alxaaji Malick. ñu bañ a génn semaine bii rek nga ñëw rek fii ci wooteel ma way ndax sa ñaari soppe say ñaari rak say ñaari xarit ku baax woote na. xam nga yéen ñaar nag da di damay séddoo ku rafet xol dëgg la ku rafet xol ku bëgg Sidil Hadji Malick te al jeex ci Alaaji Malick nag tàkk tàkk te ma xam ci dara loo ko mën a wax ak loo ko mën a def ak foo mën a bokk len dong nga ko mën a naxe mooy Alaaji Malick ak njabootam dëgg la dafa fekk nag kii taalibi Serigne Maodo si la dina rafetal këru diine yëpp ndax moom pour loolu la ndax sëñ Maodo si monsieur El Hadji Abdou Aziz mooy sëriñam waaye billahi boo jeexee xol ba doo ca fekk ku dul Sidil Hadji Malick ak njaboot yamale wala Alaaji Malick lenn déedéet déedéet kon Alaaji Pape ñu ngi bég bu baax waaye Alaaji Ngañ Alaaji Pape an mii nit ku baax la. wallaahi kenn gënu mi nit ku yaru la. Mhm. Pape Hann yàlla defal na ko loo xam ne ku ko gis rek xelam dem ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji yàlla na yàlla sa fan. yàlla na yàlla fay la. ci dara bi su may way tudd yonent bi bu ma nee. yaa rasulallah moom loolu mënu koo muñ déedéet déedéet alaaji Pape Hann alaaji Ngagne Mbaye mais mais mais xam nga lu may lu ma mënul muñ dëgg-dëgg loolu mënu ma koo muñ. Hmm. waaye boo dee doomu Abdoulaye. tëdd ci Madina tey ji Madina oh. way man. loolu kenn xamul woon. yaa jara magal Pape Hann. que tëdd ci Madina. so diraayam ba dab kese la ay waay madina waay ma boo fa Muhammad la yaakaar دومي أبدل عيجان دومي أبدل gis naa la nga nekk ci raw du doomi Abdoulaye Dia doomi Abdoulaye Dia doomi Abdoulaye Dia doomi Abdoulaye Dia papa dinaa la dalal man ngañ bàyyi wooteel ma way yow nga malay wayal doomi Abdoulaye oh. domi doomi Abdoulaye Dia oh, oh, waaw alxaaji Pape kumba an legi legi jàpp leen bis bu ngeen bëgg ma ñew jeexna na rabbil alamin mom dal alaj wow bis bu ngeen bëgg ma ñew ndeysaan ma ñew toog ak sama ñaar rak yori nga xamne ne aw ma lu dul yeen mais wa réseau ni ngi naan neena al nee na alxamis alxamis alxamis alxamis baax na alxames dinaa ñëw. te alaaji ngañ duñ ci yem dañuy indaale alaaji saam. te it billahi wax naa ko ko de. dañuy indaale alaaji saam alxaaji alxames alxaaji saam moo waroon ñëw. waaw far nag ñuy xalaat alxaaji Pape Makumba ànd. waaw suñu mag defal ñu surprise bi. kon yéen nag rendez-vous bi alxames lay doon fii ci wooteel ma way ay ay boobu plateau. la ilaha illallah. aywa Pape Am ngañ Baye Pape Malick Mbaye Sambo. waaw. ah de déedéet. loolu loolu loolu déedéet kon Malikia dañuy yokk yeneen état yeneen yeneen mais Alaaji Ngañ Alaaji Ngañ loolu kon Malikia rek la ma yokk yeneen état ci kaw. loolu lay def <laughs> Alaaji Pape ala soxna Faat njaay mu baax moom. ak soxna Khadija mi ngi fi Endo Endo Endo mi ngi fi. ak soxna Khadija mu baax moom. Khadija Khadija la puissance. sama ñaari soxna yu rafet yu baax yi di nuyu jigéen ju baax jooju ajaratu faatu faatu ka mu baax yaay ju baax ji moo baaw bi laa lekk sàmm yu ko di nuyu sunu yaay aja ay raka mi ma waxoon ni ko opaati matu sammi yëpp li fatuuli wa kam naa nag bi biri ndaa yu daamu dëggal loolu rek ma ko yaay booy lima laa nilti ma naa la nisaa um wa birruki kaana yazkuruhal anaamu est wa ma pap an yazulu biki duaa i kafatni fatim